senegalactu.com jërë ngeen jëf doof kenn du ko yaa moom xew yi sa bokk nga ko war a wax ubbil ma web ding fa fek farba ngom muy yaata yumba di xelangoo ko sànnee ko moom farba ma ngay def lako neex melna ku nan ba mandi di jayexu la ko neex mu wax xolal ma musiba bi mu wax ci bir Dakar Actu mag ñuy xamal nañu ku nekk mënoon na wax ba mu des cierno Alassane Sall ndax gor gi Sall and nañ ci ben keur kilifa mu jox ñu xaliss ma jël mom tamit mu jël sene web melna ku fokati mbir mi ci Dakar Actu neena na ko farba ana lo jël farba di ñu xamal nañu mom nday mbil liggéey Alassane Sall na wax bu waxul dina wax senegal Actu di ñu wax ni ñu xabaar ba wutewut ak dof dara ku doon jëfru sax lay nural ba mu jógee ci Thierno Alassane Sall la dem ci Mamadou Diallo jóge fa dem ci Abdoul Mbaye amul lu mu waxul Abdoul Mbaye lu dul traiteur la ñu jóge foofu ne ay waxu dof jërul dóor sa doom ñu dem yëri leeral lu mu indi leeral di ñu xamal nañu appel au témoin moom ba tey mi ngi wéy di am lépp ci biir scandale pétrole cay mim réew presse Afrique Seneweb Dakar Actu suñu gaal info ba ci sax Sénégal Daniel Sarr journaliste bii di Modou Bane ak Clédor Sène ba si ñeneen ak ñeneen waaye dara Thierno Alassane Sall moom si biir Sénégal ak ci meeg ñooy xamal nañu dara lii yëngalu ma lii ñu dem ndax ndey mbili gi la ñu woo Dakar matin di ñu xamal nañu ndey mbili gi nañ ko bàyyi ndax am na lu ko doy ndax El Hadj Amadou Kassé la ñu invité TV5 ñëpp jàpp ne Kassé Mabo dafay defar waaye yàq la gën a jege Sénégal ak ci nañu mañ ma ma yeggali si xalima ma Samba Mbaye nee na Kassé cash tout maanaam kase yàq na lépp lu baax la doon wut far ndogal fekk ka ca waaye dëgg moom du ma sa naax saay la waajo wax rek suul gaz du ko tere xeeñ Prince Afrique nañu kasa kay dafa confirmer BBC laata muy daane la sana web jaaree ko ginnaaw fil gémmiñam sëpp si xalimaam lam sa gis ba nettali ko nee kay kasa toj na fi ndax 250 yi Aline Sall doon weddi kasa far na ko dëggal Dakar ak mel na ku naan ñu tey si ndax jege ñaale Aline yi weddi nañ lu ni mel tax ñu dalal Yakham Mbaye Yakham Mbaye lu mu waxul Amadou Kase Amadou Kassé Sénégal ak ti wuta wuta ku tiit ba toog ci xottu nen ma ngay ñaanaka dànkaafu nee na ngir yàlla nañu denc almet yeeg birket yi bu kenn kos bu kenn taal ndax réew maa ngi na gun ak pétrole ñu génn si loolu wax si leneen dalal Abdoul Mbaye si biir Afrique ma ngay néewal doole daan yi nga xam ne procureur sàkk na ko ñu daan ko ko atum yàlla ak un milliard moom la jabar ja laaj comme ndàmpaay loolee site internet boo ubbi procès Abdoul Mbaye ko fa fekk ku nekk na nga koy jàngatee Sénégal ak projet bi jëm ci wàllu scandale de 10 milliards Abdoul Mbaye mi ngi ñuy xamal nañu ñettu atu yàlla kenn mënul génne benn dossier buy leeral ne man Abdoul Mbaye damaa lëndëm coow li coow li kay lenn la mooy li ma nekk ci opposition bi moom si nekkee ba léegi aw ma jàmm aw ma salaam lépp nguur gi la acharnement intimidation lu nekk maa ngi koy dund ci ñetti atu yàlla yi waaye na leen leer na li billahi lu waaye atte ci kaw suuf yow man xiyam di ko atte nañu dem journaliste ba continuer ak moom ji ko ba dem ànd seeg président Macky suñu néeg yi mën nañoo bañ a soreyandoo ndax mën nañoo naanandoo attaay leneen lu gën fës ci site internet yi octobre site bii di Sénégal ak journaliste bii di Ndeye Fatou Ndiaye waxtu lañ ci teg nu yaatu indi ay image yu leer nañ maanaam preuve à l'appui lépp ngir firndeel benn sëy boobu jamono ji may wax ak yéen masoon na fee am la ñu a wax ndax gannaaw bi soxna si dundee sant ba di mbàkke si facebook am si télévision ba kenn gisatul sant mbàkke bi ak yeneen ak yeneen moo taxit mboolem site internet yëpp daal di xëy samp seenu blaaj nee nañ cin ba nul fuqul yax ba sana woon na mees fu mu jaar ñu génn foofu dem seeti suñu gaynde yi ubbil ma Dakar Buzz coupe d'Afrique bee tax may wax ñeel gaynde Aliou Cissé yi suñu premier match bi dimanche la woon ñu doon jàkkaarloog waa Tanzanie ñaari bal si dara la mujjee gaynde Aliou Cissé yi dara waa Tanzanie ak ay occasion yu dul jeex